docteur Famara Sané ñu ngi lay nuyu. maa ngi yow sa xam-xam dafa màcc ci wàllu science politique ngay joxe tamit ay cours di jàngalekat ci wàllu relation internationale ci université Cheikh Anta Ndakaaru nga bokk tamit ci parti démocratique sénégalais ñu tàmbale ko sax ci wàllu politique ak opposition bi li nga xamante ne jamono ji mooy ay càkkuteefam Front national de résistance euh, di sàkku ñu daal di soppi article L31 L32 bu code électoral ñuy sàkku tamit ñu tekki ndombal tànk sax dañu fi war a jëlee conseil constitutionnel ndax loolu mën na nekk. oui merci comme ni nga ko waxee rek waa Sénégal dafa nekkoon ci benn situation en tel que euh, gis nañu euh, pouvoir en place à un moment donné pour mu mun a consolider pouvoir am dafa demoon ba arrêté ay détenus ay ay les grands leaders. de l'opposition tel que Karim Wade Khalifa Sall mais aussi dem naa ba ba ay manifestation populaire euh, moo xam ne euh, les marches ou bien les meetings parfois dañ leen empêché Euh, euh, ci situation boobu ak chômage bi moom lu mu war a liggéey liggéeyu ko chômage bi chronique installé na à telle enseigne que euh, affaire Sonko bu mu ñëwee rek élément boo xam ne moom moo indi lutte boobu et gis nañu pouvoir gis na détermination boo xam ne xale yi ni ñu doon manifester dans la rue xam ne affaire bi il faut vraiment des éléments ci ay tierces personnes ñu mën a intervenir qu'il a profité euh, du saluer l'initiative des, chefs religieux ñoo xam ne def nañu lépp pour que euh, vraiment la situation na na na revenir dans le calme. mais euh, li ñu est-ce que tamit ëppul non exigence bi parce que exigence boo demee pouvoir en place bu demee nga ne ko euh, man ci jëw bi diw ak diw la sélectionné ñoom ñoo war a nekk sama adversaire ci élection bi boo demee nga arrêté ay les grands leaders Khalifa Sall euh, Karim Wade nga dem nga interview manifestation populaire alors euh, affaire bi da nekk une opposition boo xam ne elle était donc bu amee opportunité rek comme opportunité bu Adji Sarr ak Sonko alors opposition day exiger loo xam ne parce que li ñu posé yëpp ay situation yoo xam ne gis nañu ko par exemple euh, juge yi à un moment donné sénégalais yëpp d'accord nañu bu bu ñu defee bu benn bu ñu bu ñu jëlee benn acte rek gars yi dañuy duñu d'accord bu ñu jëlee benn acte rek sénégalais dañuy contester donc à ce heure dañuy seen crédibilité kenn wóolu leen kenn wóolu justice à un moment donné parce que pourtant ñu ngi def am na juge yoo xam ne ñu ngi def seen liggéey mais affaire politique moo ñëw yàq affaire bi yépp loolu moo tax il fallait que ñu crédibiliser justice bi quoi. Mm. loolu moo tax euh, je pense que euh, situation bi li ñuy énumérer yépp état état bu respecté loolu on va se retrouver dinañu nekk ci benn état boo xam ne. état de droit gis nañu tamit euh, coowal Ousmane Sonko Adji Sarr li mu jur mooy opposition ñi ne la woon yëpp daanaka ñëpp a yeewaat ñuy woote euh, bennoo ndax euh, jàpp nga ni kon bennoo boobu mun na nekk luy wëy. <laughs> non opposition bi nelawul woon opposition nelawul woon mais dafa ragaloon dafa ragaloon te c'est normal ñu ragal parce que gis nañu ma ku yëngatu ñu jàpp la ku yëngatu ñu tëj la donc dem nañu de à un moment ah, kenn kenn kenn amul fit pour mun a manifester donc mais affaire Adji Sarr moo moo indi déclaration bu bu eh, pouvoir bu ma ci Macky Sall parce que gis nañu ah, événement bi tax na ça a été un événement ñoom ñoo ko préparé ñu ñu ko préparé voie bu ñu bëggoon jël pour vraiment euh, incriminer Sonko ça n'a marché et aujourd'hui on se retrouve dans une situation telle que Macky moo am euh, euh, les aspects négatifs. léegi ñu wax tamit ci li nga xamante ne moom la jur lii di coowal Sonko aji Sarr bi nga gis ni moom moo nekk li taal daay bi ba ñu toll fii tey waaye loolu ba fan la yàgg régime bi fi nekk rawatina ci biti réew. Euh, affaire Adji Sarr Sonko. bon d'accord naa quelque part quand on dit que c'est une affaire banale hmm. mun nañu nekk ni ñu nekk entre deux citoyens sénégalais laisser la justice faire le travail et laisser les politiciens de waruñu dugg ci euh, situation boobu mais maintenant ñoom ñoom ñaata ñoom ñoo tax seen adduna yépp xam lan moo xew Sénégal ñu xam ne euh, pouvoir en place mu ngi xeex day utiliser les canevas de mécanisme de l'État pour mu mun a xeex ay ay opposants yi donc affaire bi dafa am dafa indi euh, ay ay ay éléments yu négatifs yoo xam ne image boo xam ne kenn seetool ko au niveau national voire même au niveau international. yow mi sa xam-xam màcc ci wàllu relation internationale lii lan ak lan la mën a yàqal Sénégal. non mooy euh, pays teranga. lu ñu wax ne Sénégal dëkk teranga la donc exemple boobu mun na forcer image boobu au niveau international Sénégal pays teranga Sénégal ñun ñu ngi wootee depui mille huit cent cinquante presque Sénégal cinquante cinq mille huit Sénégal mu ngi wootee ba léegi Sénégal mënul nekk démocratie xam nga yooyu yëpp dafa remettre en cause on quand on parle de la France on est pays de pays de démocratie parce que berceau de la révolution et, euh, euh, de la révolution française mais également France euh, mu ngi organiser ay élections transparentes France ak Sénégal participé na ci assemblée France depuis le dix-neuvième siècle ba léegi Sénégal mënul nekk pays pays un pays démocratique Cap Vert bu ñëw léegi daf ñu dépassé ah île Maurice daf ñu dépassé te dëkk yu bëri dañu dépassé même Gambie bi nii sax daf ñu dépassé ci organisation élection léegi ñu wax euh, ci wàllu politique ci boppam ak sa parti muy parti démocratique sénégalais bi nga xamante ne ñàkk na nguur gi 2012 ba léegi ñu gis lu bëri lu ci xew ay kàngam jóge fi lan mooy ëllëgu parti bi nga xamante ne ba léegi dafa mel ni seen yaakaar lépp da ngeen ko wekk ci maître Wade ak doom ja ah traversé période yoo xam ne dafa dafa dafa métti woon dafa métti woon c'est vrai que ñun xam nañu opposition ñëw ci pouvoir bi dellu ci opposition mais li ñuy gis léegi après 2012 moo gën a garaaw parce que ci opposition boobu dañu dañu diaboliser eh, ñu ne yaa ngi sàcc nañu ay tapis sàcc nañu ay tableau sàcc nañu ay xaalis ay lu ñu teg ci kar ci bopp Karim na loo xam ne Euh, kenn mënu ko imaginer parce que ci dëkk boo xam ne institution yi ñu ñu ngi fonctionner naka benn nit mun a sàccee xaalis yu mel noonu kenn ci institution ñi liggéey ci trésor ñi liggéey ci impôt domaine kenn euh, mënul xam affaire boobu pour ñu mun ñu mun ko signaler loolu donc loolu moo tax euh, euh, alhamdulilah situation bi mu ngi évoluer gis nañu tam ci ci suñu biir am na ñoo xam ne dañu démissionné bay ñuy dem am na ñoo xam ne nekk nañu suñu biir di continuer di joxe information mais comme pas bi nu mu liggéey parti bi rek dafa liggéey da à telle enseigne que dina dina am ñi dem comme depuis puritain parle de Oumar Sarr mais dina am ñoo xam ne ñoom ñu ngi fii parce que c'est un pur produit Wadi et nous sommes des libéraux africains et jëm nañu euh, suñu voie bi. Hmm. ñi des est que am nañu mbooloo. loolay wax ñi des hmm. ñi dem ñi dem man je mun naa wax ne ñi dem ñoo amuñu mbooloo boo xoolee ñi dem lépp dañuy dem seen bopp ak seen quelque groupe mais la grande masse est restée la preuve boo boo jëlee tournée bu ñuy nekk di def actuellement à travers le Sénégal pour la vente des cartes euh, engouement euh, les populations sont pressées de revoir le parti en mouvement donc euh, je pense que. Euh, élection yi ñëw ah dina métti <laughs> yooyu locales yi la ba léegi dara leeragul dinañ ko amal ak kañ lay doon leeragul euh, PDS lan moo ci seen taxawaay. xam nga léegi boobu sama position la la organiser élection actuellement au Sénégal dina métti parce que bi dañuy tripatouiller fichier bi à telle enseigne que il faut léegi comme quoi le front lu mu wax donc il faut il va falloir qu'on revoie ce la na nañu jël ay experts ay ak opposition ak société civile ñiy liggéey ci ficier bi parce que fichier bi dina di nga retrouver n'importe quoi gis nañu ñun ñun sommes des acteurs à la base nous somme des des électeurs à la base également nous votons dans les villages nous savons ce qui se passe là-bas donc man de yaakaar naa pour ñu mun a am élection yu transparente il faut ñu liggéey ci fichier bi liggéey bu baax. ak yow mën nañoo addu ci biti réew ak actualité bi ci Congo Brazzaville élection yu amaloon ñu daal di ci fësal résultat yi nga xamante ne kon provisoire la waaye ñu gis ni kon kii di Denis Sassou Nguesso jël na yëf yi raw gàddu gi ci téeméer boo jël juróom-ñett fukk ak juróom-ñett yu juróom juróom fukk ñaar mu mel ni kon raafale na yëpp loolu xëy na du mbéy tegtal waaye ndax da nga jàpp ni faatu que opposant bi di Parfait Kolela euh, euh, dara la ci. non mais je pense que élection affaire euh, Afrique centrale bi. day métti day nekk nii élément affaire boo xam ne dafa métti. parce que gis nañu dans ces pays là ay dëkk yoo xam ne dañu bëri potentialité mais aussi ay dëkk yoo xam ne seen élection yi presque boo gisee président yi nekk foofu ay président yoo xam ne ils sont là pendant des décennies mais aussi am gis nañu puissance occidentale. locales yi dañuy dugg ci affaire yi donc foofu dina métti parce que président yu fa nekk euh, def nañu liggéey boo xam ne pour ñu bàyyi pouvoir bi euh, loolu ils sont pas encore prêts dans la mesure où am nañu ay dañu entrain dañu am un passé un passé boo xam ne passé boo xam ne euh, baaxul donc parce que seen gestion bi yëpp seen gouvernance seen pouvoir bi depuis ñu nekk ko léegi dañuy entraîner beaucoup de morts à telle enseigne que aujourd'hui il faut ñu am une assurance pour pour que pour que bu ñu demee kenn du leen topp kenn du leen sonn hmm. sinon dañuy continuer toujours di tripatouiller eh, constitution bi pour ñu mën a continuer di gérer ces pays là loolu moo je pense que euh, Euh, DCE opposant bi hmm. n'a pas boobu amul impaction parce que gars yi li ñu gis population li ñu gis opposition li ñu gis ci Afrique centrale ragal nañu di am un véritable parti d'opposition parce que ku nekk da ngay ne hmm. dina dee waaye daal moom tamit la ñu jàppoon ni moo nag principal rival bu Sassou Nguesso li am ba am mooy faatu am ay fan rek lañ ci teg ñu amal élection yi loolu tax na ba opposition bi nag euh, di kon euh, dànkaafu yëkkati article soixante-dix bu constitution bi nga xamante ne loi dafay prévoir tamit ñu dakkal wala annuler sax neenal élection bu fekkente ne kenn ci candidat yi ñàkk na bakkanam moo tax ñuy annoncé sax ay recours ndax jàpp nga ni loolu mën na am lu mu jur. oui comme ni ma ko waxee rek waaw xam nga président africain yu bëri seen gouvernance dañuy profiter ci situation bi pour pouvoir se maintenir donc moo loolu moo tax man de yaakaaruma peut-être que recours bi dina baax quoi mais normalement dans un pays démocratique situation ne ñu préparé encore ñu demandé candidat ko parti d'opposition yi ne ñu déposer encore pour ñu mën a organiser élection mais euh, comme ñi nga xam rek euh, dans ces pays de l'Afrique centrale euh, souvent dañuy profiter ci opportunité ci occasion Euh, pour pouvoir vraiment se maintenir bien revenir au pouvoir gis euh, def yépp pour dàq le président ci biti réew ba tey wala bokk lëkkaloo yi euh, diggante Sénégal ak Gambie mu mel ni fan yi ci askan wi rawatina xawoon na ñagas ak ay doomu sénégalais yi nga xamante ne dañ leen mujj buntu xatal gannaaw fitna gi fa yow diggante kon ñaari askan wi ci benn gox loolu lan la mën a indi ni gàllankoor ci lëkkaloo bi Sénégal am léegi ak Gambie nga xamante ne rafet na ba Barrow egsee ci nguur gi ba léegi. Eh, Sénégal ak Gambie comme ni ñu ko waxee étudiants yi ni ñu wax rek c'est nous dans donc euh, ay ñaari dëkk yoo xam ne presque famille bu ne am nga famille fii am nga famille Gambie ñaari dëkk yi peut-être colonisation mooy ñëw euh, diviser mais boo xoolee. actuellement euh, ci Sénégambie bi Sénégal ak Gambie am nañu de bonnes relations am nañu de bonnes relations avec la Guinée mais ces relations se manifestent seulement à travers les la, les sommités c'est-à-dire euh, président de la République euh, pouvoir yi ñi nekk ci kaw ci sommet bi ñoom ñoo am de véritables relations mais population yi ils ont population elles ont une autre interprétation une autre vision par rapport aux Sénégalais surtout par rapport aux Sénégalais loolu moo tax man je pense que pour consolider les relations entre Sénégal et la Gambie entre le Sénégal et la Guinée et même entre les, deux Guinées il faut ñu gis ñu travailler au niveau des régions frontalières parce que ñoom ñooy côtoyer donc ñu organiser ñi ay manifestations ay rencontres régulières ay ay ay série de dialogue pour que ñëpp xam ne ne ñun colonisation moo ñu séparé mais ay ñaari dëkk yi presque euh, dëkk yi frontalières presque benn la quoi mm. donc je pense que les les responsables doivent organiser des rencontres régulières au niveau des régions frontalières foofu la ñuy gën avant ñu dugg ci à l'intérieur donc mais loolu dina tax population ñu nangu ñu nangu seen biir euh, ñi xam ne kii diw ak diw euh, dëkkuñu frontières yi moo ñu séparé de benn la ñu. ñu jeexalee ko docteur ak euh, li nga xamante moo jëm euh, ci mbasum Covid 19 bi ak li koy xeex muy kon ñàkk bi jur na coow du Sénégal rek ci àdduna wërngal këpp am yu ñuy beddi am yi nga xamante ne dañu koy ŋàññ loolu ndax gisoo ni benn xeex la bi nga xamante ne mun na am lu mu indi ci wàllu wàllub euh, géopolitique gi beneen xajaloo. waaw man de yaakaar naa parce que moo loolu sama xalaat la quoi yaakaar naa su OMS moo deful liggéeyam parce que normalement OMS moo nekk si structure d'intégration mettre en place benn ko benn kuréel boo xam ne chercheur en pharmacie ñoo ñoo war a travailler ci ñu am benn benn vaccin universel du vaccin boobu du vaccin Angleterre du vaccin France du vaccin euh, États-Unis mu nekk benn vaccin boo xam ne vaccin universel la vaccin boobu la ñuy jaar mais léegi gis nañu ay ay institut de formation de de pharmacie ñooy nekk di def di di xeex ak dëkk itam dugg nañu foofu am nañu vaccin bu France am na nañu Angleterre vaccin bu États-Unis vaccin bu France eh, bu anglais yi bu ñu continuer ci mun mën ñu dem ba am vaccin ay vaccin yoo xam ne kenn du wóolu vaccin yooyu dina nekk ay vaccin yoo xam ne du vaccin yu baax loolu moo tax je pense que euh, OMS moo war a def liggéey boobu donc mais les puissances euh, l'aspect économique moo indi yëpp parce que ku nekk bëgg Uh, am sa vaccin nga jaay ko nga am sa intérêt ci sa dëkk bi. docteur Famara Sané ngi lay gërëm bu baax. merci ma fàttali kon sa xam-xam dafa màcc ci wàllub science politique di joxe tamit ay cours di jàngale kat ci wàllub relation internationale ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru bokk it ci parti démocratique sénégalais.